Amat Suzanne Kamara, coordinateur national du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, APR. Voilà donc euh, nous sommes réseau national des enseignants de l'Alliance pour la République pour waxtaan ce que parce que euh, élection la ñu campagne campagne présidentielle nee le 24 mars la ñuy voté c'est vrai nag am na ay péripéties euh, ci processus électoral bi gënuñ leen ko xam boobaak léegi ba léegi tey am na ñuy wax report am na ñuy wax aussi maintien mais tout yëpp nous ci xam dara ñi war a décider dinañ décider maanaam les institutions de la république Maintenant, nous, ñun dañu en tant que jàngalekat bokk ci parti bi dañu war a wane sunu taxawaay. ak ak lépp loo xam ne mën nañ ko apporter par rapport ci élection yi légui nak département yi 46 département la département yëpp ñu ngi fi ba paré ñu mobiliser aussi les enseignants de la région de Dakar légui nak c'était pour waxtaan suñu biir xol nan lañuy démé ci élection yi manipulation nak fu ne na fa mais ba demb

wa Nioro ñu ngi fi donc ñëpp ngi fi bu leen dem bu leen dem mais bu ñu ñëwee dañuy wax ak ñun yéen ngi dégg dañuy wax ak ñun voilà léegi. wa xam nga euh, fii sécurité bi xam nga fii am responsable sécurité c'est un gendarme il s'appelle Diop j'oublie son prénom mom moo ñu wax que ne euh, les nouvelles restrictions te pourtant moom démb.

Nous comme camarades ils ont commencé à rallier Dakar Nous leen bàyyi ba au siège ñu constater suñu bopp bu ko defee lu ñu wara def ñu def ko Maintenant, la presse bi mënuñ leen jël di leen les di un message donc mën pouvez leen délivrer après il n'y a pas de souci. parole pour au niveau du siège de la paix je dis que mon parti euh, va mal, les enseignants vont mal. Parce que vous savez, les enseignants pendant plus d'une décennie ils ont au nom du parti nous ñu nekk ci campagne électorale ñu ont ci suñu siège nous dañuy activité ñu ne fait du ngeen ko l'activité était accordée Nous savons dañuy vraiment il y a toujours problème problèmes. problème ils ne sont pas conscients des circonstances

donc tay amna luma metti metti metti metti ci suñu parti te xam né nima ni ko amé suñu collègue yi fi taxaw yépp ñom lañ ko amé parce que. loolu moom la moom. ñun ñi fi nekk ñëpp ñun ñi fi nekk ñëpp kenn duñu gis naan ñi fuñu joggé xamnañ xam ñu ci parti bi au niveau local xamnañ nañ ñu ci parti bi au niveau national kon lobby yi ñi def war nañ ko arrêté. lobby nañ lobby lobby ba duggal parti bi ci problème instant bi génn ci problème bee jot nañu le lobby do doo do teggi te nga teggi ko donc loolu laa amoon lu ma siy kàddu lu ma di wax ne vraiment li fi gis parce que mérité nañ leneen ci parti bi merci beaucoup. ñan ngeen yaakaar ne ñoo nekk ci ginnaaw loolu. ñi nekk ci ginnaaw loolu weesuwul ñi nga pour report am de deux ñun li ñu concerné mooy suñu structure ñi nekk ci ginnaaw moy ñi nga xam ne dañ fee nekk di mbubboo ne ñooy coordonner. wuñ parce que waxna ko fu ne ay enseignant bu dee da nga yoré structure bi bëgg a coordonné da nga koy coordonné ci département yi département yi coordonné ci commune yi commune yi coordonné ci quartier yi quartier yi coordonné ci kër yi mais malheureusement suñu structure bi amna coordination nationale bu fi nekk bo xamné

membre du bureau national Ce qui est carrément que il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de combattre le candidat Amrouba. la réalité c'est ça parce que depuis hier le siège nous a été autorisé Maël nous a autorisé l'accès au siège à la dernière minute il y a Diop nous l'a dit carrément dans son bureau que mon jot na nit en qui n'est pas en phase avec avec Mayel ça veut dire qu'il y a une autre personne qui qui n'est pas responsable en, réalité du fonctionnement du siège qui tape dans l'ombre travaille pour saper la dynamique de de de de de candidat. C'est qui? en fait nous savons exactement qui sont ces gens là nous à Kédougou il y a un ministre qui la première personne qui a dit qu'il ne va pas soutenir le candidat nous l'avait dit ce qui est en train de se dérouler il nous l'avait carrément dit à Kédougou donc donc c'est clair mais nous nous allons travailler pour l'élection Macky Sall nous a absolument encore rien dit son seul candidat, c'est Amoudouba. Nous allons travailler pour l'élection de dès le premier tour, le 24 mars. C'est ça notre problème. Le reste, ce n'est pas notre problème. Nous, sommes Dara, Dara. Mais nous, actuellement, personne ne peut nous faire changer de candidat. C'est une ligne de nous arrêtons.